bëree bëri lay bëree bëri te lay bëree ndaa naan laa ñaari yoon as dama mbër pare na Fatim dafa pare ndeysaan takku takkaay bu jekk Fatim Fatim parcelle nga dëkk yow mais maa ngi lay wax ni la tey dama gis ci moom benn calme boo xam ne nii mais yow parcelle nga dëkk Fatim ah, parcelle kon da far faruma nag waaw ah. <laughs> maa ngi ëffal kër Fatim di wax ak ñaari mbëri Fatim jàppoo ni combat bi day gaaw. li làmb nangoo ak li làmb. dama ragal ni Ada Fass day jéem a màpp ci kaw Tapha mais su ko defee def erreur. bu ko defee def erreur bu. waaw bu mu màpp ci kawam. jërëjëf. ndax Tapha Mbeur tey dafa ñëw. mais Ada tey bu mu bëreel public moom it. waaw mais tey Tapha Mbeur dafa ñëw gis nga Tapha Mbeur ni mu nekkee ambianceur mais tey dafa ñëw te def tek. xam nga maa ngi naan la buur loolu dafa. arbitre bi la na Fatim. ay Fatim da Ada Fass la ñu jàkkaar lool Tapha Mbeur lu woon gannaaw. ndeysaan Tapha Mbeur xam nga daan ki nga xam ne moom mooy Junior. wallaay ndeysaan Fatim. Ada Fass Ada Fass jóge ci digganteem ak bébé bis mi. waaye ku ne xam na on le fou moo ko freiné woon moo ko Fatim buur yaa ngi fàttali lu garaaw. Fatim xoola tek tekkaaral gi gi Tapha Mbeur def Fatim. Tapha Mbeur ni tek gis nga Ada Fass bu ma bay def erreur Tapha Mbeur Ada Fass. ay waan waa Fass. Mbour dafa am mbër Ada Fass. combat gang la Fatim combat gang. yemoo dimanche 31 lan novembre. 31 octobre 31 octobre Fatim. ndeysaan drapeau show technique Fatim. waaw le technicien. sama xarit boobu gis naa ko mu ma buur jël na ma. wallaay ndeysaan jël naa ko Fatim. ah ca ñu doxal Cheikh Oumar Gaye ci caméra bi. Ada ah, cokkaas na mais. ay waay gu nekk bongo rek mooy filmé tey. caatu yaayam la caatu la. Tafa dagg na léegi lewtoo bi. ba tey Tapha Mbeur ngi déglu Ada Fass. Ada taxaw ci ay tànkam siggi Fatim. Tapha Mbeur wàññi relance ci ay tànkam. nanu daje mu jeex Fatim. bu daje benn yoon lay doon. dañu war a daje. daje benn yoon lay doon. dañu war a daje loolu mooy yoon daba. mais lewtoo bu diib. kurpeñ dalagul coono nga amagul. Fatim lu nga mën a ëffal bëgg ñaari xeex Fatim. Fall yow maire ëffal kan nga gis nga li ma waxoon Ada Fass bu mu commettre erreur yi Fall gis nga daje nañu xeex ba xeex ba xeex ba xeex ba jeex na jeex na xale la Fass ragal du fa dëkk Tapha Mbeur Tapha Mbeur lan la Fatim est-ce que xam nga Mbeur jël na coup boo xam ne da nga naan dafa kaw Ada Fass moo jël coup Tapha Mbeur lan la Fatim waaw lan la